Et Aïcha Ndao de Bayoufpout. Je suis ici depuis, à Bayoufpout depuis et on est de l'Institut de International Sufi School Khidmatul Khadim. Aujourd'hui, c'était la présentation de l'Institut Khidmatul Khadim International Sufi School. C'était une association, donc là, on est passé au statut d'institut. Mais c'est un institut qui avait déjà commencé avant des formations au niveau de la formation de lettres, au niveau d'une, avec une démarche non violente. Donc euh, là, au Sénégal, avec le centre qui, se, qui est ici à Bayoukmout, qu'on appelle d'ailleurs un village de paix et de service, cette formation va commencer ici avec euh, cette, euh, cet institut qui va se mettre en place euh, à, à Bayouf et à Noto et à Toubatoul. Je pense que vous aurez le document pour plus de détails, mais ceci dit, cet institut vise une formation à la paix qui a déjà commencé, il faut bien le dire, à l'extérieur, avec des formations qui se sont déroulées dans différents pays où se trouvent nos branches de l'école. Khidmatul Khadim, ça vient de c'est être au service du serviteur, parce que si vous voyez le message de l'école, c'est vraiment créer des êtres de paix et de service qui seront des créateurs de solidarité et de partage. Donc ça vient de ce hadith, de cette tradition prophétique qui dit que bon Dieu euh, a en charge toute cette famille humanitaire et que le plus aimé auprès de Dieu est celui qui sait être le plus utile à cette famille. Donc toute personne qui vient sur Terre a cette mission d'être utile à la société. Donc, Khidmatul Khadim, la vocation est de pouvoir être au service de l'humanité entière. Et ça vient de Céline Touba, bien sûr, qui est allée pendant son exil en Mauritanie et qui a rencontré Cheikh Sidi Ahmed, qui est un Mauritanien, et qui a donné la vocation de cette école qui est destinée à l'humanité entière. Ici à Pout, vous voyez que vous êtes sur le champ de Bayouf Pout parce Donc il a fallu, là où le message est né, avoir cette assise territoriale pour pouvoir euh, vraiment montrer que ce qu'on dit C'est pas que de la parole, mais c'est une réalité. Être dans l'intelligence du réel et pouvoir réaliser dans le concret ce qu'on est en train de dire. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres écoles dans le monde aussi où les formations ont commencé et où les terrains aussi ont commencé à avoir le jour parce que quand on parle de cette démarche non violente, on pourra pas rentrer dans les détails, mais on parle de ce retour à la terre parce que tout vient Bien. Madame, quels sont les enseignements qui vont être dispensés exactement dans en détail, euh, vous, l'aurez, il y a quatre cycles différents. C'est une formation de lettres à travers une loi de la paix qui a été inspirée au directeur général de l'école Charalindao. Donc, euh, ce sera le chemin initiatique de la paix qui sera approfondi en deuxième et en troisième cycle. Et en quatrième cycle, les, les, les, les stagiaires, les étudiants auront à effectuer un stage. dans une ONG où ils seront sauront mettre en pratique justement euh, ce qu'ils ont appris en tant qu'êtres de paix pour pouvoir justement être au service de leur pays, de leur nation. Parce qu'on va prendre des gens bien sûr du Sénégal, mais aussi de toute l'Afrique et aussi d'ailleurs. de la réinsertion euh, euh, à, à partir de quoi s'il vous plaît On aura associé à cette, à formation à la paix des centres euh, de formation au niveau technique, par exemple au niveau de la mécanique auto, au niveau de l'artisanat, parce que tous ces secteurs sont appelés à être Je ne sais pas si vous avez bien vu le plan directeur qui a été conçu. Si vous voyez chaque secteur, les besoins de l'individu, que ce soit au niveau logement, nourriture, habillement et tout, tout est considéré là-dedans. Parce que le but, de son esprit. Donc tout ça est pris en considération au niveau de ce de ce plan directeur. Et si vous regardez bien, l'insertion se fait automatiquement parce que nous avons actuellement ici à Pout avec nous non seulement des Sénégalais, mais des, mais des gens, mais des jeunes qui viennent du Burkina et ailleurs et qui, Inch'Allah, euh, vont repartir dans leur pays après la formation pour créer la même chose chez eux. Il y avait un Sud-Africain qui était là, qui est rentré parce qu'ils Écoutez, on ne parle pas de finance, on parle de capital humain. Ça viendra, on a commencé à zéro. Le Cher, quand il a commencé, il a commencé seulement avec un idéal. Et vous voyez, aujourd'hui, il n'est pas là. Et ce sont d'autres qui parlent du projet. Quand on commence, on commence seul. sans rien, comme les êtres de paix. On a étudié au moins une vingtaine d'êtres de paix, on voit la même démarche. La personne commence seule avec une conviction Et au fur et à mesure, vous voyez les compagnons qui arrivent et qui se joignent au projet. Et le tout se met en place. On ne pouvait pas s'y attendre. Aujourd'hui, l'Institut est prêt. Monsieur Papmousset est là. On ne pouvait même pas se demander. je me rappelle, j'étais avec les papiers depuis des années. Et tout d'un coup, un beau jour, on voit que c'est créé et que c'est là. Donc c'est une question d'idéal, de conviction, de croire. de ne pas se sous-estimer, mais de croire en soi et dans son capital humain. Et c'est ça le message qu'il veut faire passer le Cher à l'Afrique. C'est-à-dire que chacun peut, chacun est un trésor pour l'humanité et chacun peut y arriver. Et l'exemple de Bayouf Pout en est un exemple. Bien. man laa tudd technicien supérieur de l'agriculture euh, mais keroog bi nga xamee ne bii de par euh, Mbaye Kagne mi nekk di sunu wëlëre moo xamale noog bi ñu fekk leen ñu am idée ñu am pas-pas pas-pasu lan xam ne nit nit du garabam nit wéttalam la waaye nit nite mooy garabam nite mooy nga am njariñ ci nit ñi fii ak yaa ngi ci àdduna te li ci wérte wóor moo di e, nite gi mooy liy dox ba jur lii ñu xam ne doomu aadama su bëggee belli ci lim am doo koy bellee ci fi mu am mu dikk ba fii ñu dikk ba fii mu xalaat fi loo xam ne lii njariñ la loo xam ne lii ci doom doomu réew mii di Maulana Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ni mu xalaatee àdduna ak li mayee jàmm ci àdduna ndax boo bëggee mayee jàmm dangay jàmmal jàmmoo bu ko defee lépp lu lépp lu jàmm dalay daw te nag nan ngay jàmm nan ngay jàmmoo mooy xam yaay kan xamit li nga xam ne lii moo lay jariñ moom ngay jëriñi nit ñi mu sa Cheikh Alé Ndao ànd ko xalaat ko andi ko nga xam ne képp kuy sénégalais lii ëpp na Sénégal àdduna warngal kapp la ndax fexe ba doomu aadama di dund di dëkk ci fu sell di dund ci lu sedd ci lu sell di ànd ak ay nit ñi ci lu sell ci dund ak ci mu daarante ndax inimal moo inimal moom noonu ixwa jooju ne xoon mooy julli ay mbokk ngeen mais bu ay bokk di leen waaye fas xoo bay na axwaykum jë mooy mu daarante ci jàmm ak jokkalante kon loolu ba gis loolu moo tax ma ñëw fii may bëgg bu dee tabax bu doonte kon benn mool laa am ma boole ko ca tabax bi ba boo ëllëgee bu nu étage bi taxaw ba taxaw na ma ne mool bay de maa ko ca def jàngale bi ni koy gisee mooy jàngale bi bi ci jiitu da nga indi nit ñi def leen lu mel ni tarbiya mooy xamal leen ni nit ki lim gën a bëgg ci àdduna mooy mu am boppam ba pare nag du euh, diis fenn lennam lu koy maye nangoo ñàq te bañ koo yàq nangoo jàng te te nangu caa sax te di ko jëfe loolu mooy jàngum fii ndax njàng bi ñaar la donte kon dañ lay wan lu ñuy lu ñuy defar lu mu mën doon ma nga cee teg sa baaraam bu dee gàncax la bu dee ak càmm la dan naan la garab gaa ngi nii bi ma maanaa lii mango la waaye mango lu mu mënal doom aadama ñu ne mango kat ñii man ñi ko defar màcc bi moo ci gën a gàtt waaye def ci def ci siro def ci wu beñe mooy fab mango ji mën koo jàpp weer ko ba mu wow mu nga di koy yéey te ndax dina tax ba mango dootu yàqu dina tax ba assurance du yàqu dina tax ba limon du yàqu kon day njàngal moo xam ne mi le yàq lan war a njëkk a xeex ndax at mu boo xoolee lii ñor ci mango ci Sénégal di ko ñor ci xaal suñ mënoon a dencaka defaraat lun bayati dina nu amal njariñ ndax day doon Sénégal di bitim réew ndax boo xoolee liy yàqu ci xaal soo demee ba mën a def euh, marmalade du xaal mën a def potage ci xaal mën a def ci mango confiture mën a def ci mango sirop mën a def ci mango di ko weer ba moog nga xam ne mën na ko mën nañ koo jaayee bitim réew day dem ba mango day day raw gerte day day rawu ceeb maango day raw tamaate mel ni suukar kon fii leen fiy jàngale mooy jàngale nekk ga maamee daan nekke ba daawunu jëggaani ndax nit buy jëggaan ba mul dana xaaraan te ku xaaraan di nga ñàkk jom te Sëriñ Tuubaa dane as gor boo boo fexe ba du ñàkk jom du tayel nangoo jàng nangoo jaamu yàlla lum lum am mu doy ko lu mu ñàkk muñ ko lu yàlla def mu neex ko kooku am nga nit te saa yoo amee benn nit am ngam réew